Tëngëj laa jógee pour ñëw Dakar war a dem bisis ma ne xaar ma essayer terre mais franchement ça répond à mes attentes quoi waaw li ma doon xaar yëpp instant bi macha allah. c'était cool neex na de aussi rapide na ak kii rapidité bi moom luxe na aussi calme na te neex na aussi. terre bi lim ñuy jariñ ñun xam nañ ko bu baax a man kay dama ne sama xarit bu ma àndal muy paate dama ne ko man instant maa ngi avion avion laa yëg terre bi dama kontaan. Celui Séné rafet na gaaw na te neex na. man maa ngi bàyyeekoo Fass mbaaw mais presque ki ma àndaloon man dama waar sax dama jékki-jékki rek mu ne ma àgg nañ gaar bu mag ba te bon li ma si gën a neex mooy ndiggi yëngatuwul dara lépp tekk daal normal. accueil bi vraiment c'est formidable nous sommes très bien accueillis et puis encore euh, beneen beneen beneen beneen beneen kii mooy wax mooy il un changement il un changement vraiment sa ngay sentir changement bi quoi. bon ñaar tamit voyage moom vraiment ça s'est bien passé bon confort bi si biir vraiment lépp ça s'est bien passé quoi. c'est impeccable kay c'est vrai d'ici kii ay ay dix minutes trente gën a gaaw parce que boo fekkee oto presque une heure da ngay bi waaye ñu ngi yàlla ñaan yàlla affaire yi continuer loo gis si àdduna nag par benn benn waa train bi bu ñu ko amulee léegi kañ lañ ko war a am bu ñu a xalaat indi train bi embouteillage bi Dakar nu mu mel kañ lañ koy am Macky boo amee xelam di xalaat loolu du ko indi. bu ko méngalee ci dara gis nga li fi nekk moo fi nekk gis nga crise fii bi adduna balaa muy jeex ci crise la ñu bëgg di dund crise kenn defu ko commerce la maanaam njaay ak njaay la njaay da ngay wàcc da ngay yéeg loolu mooy njaay ba ba ci nappa itam moom da ngay am da ngay ñàkk